ليست بلا تمنع أبواب الجحيم سما لمن تدبر وتمني نفا تقول كل من يتم تفيد لكل من يهدي ويستفيد تدل عن خير الليل asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu topp ci alxadimiya tv fépp fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ci dëkk bu sell bii di Touba tey di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar dëppook 17 safar yéen a ngi koy gis fu ne la mbokk taalibe yi fas yéene bàyyi ko ngir wuyu si ndigal li nga xamante ne nii ku baax ki joxe woon na ko di Cheikh na Ahmad Bamba Khadim Rasoul ngir su bis bi ñëwatee di bisu màgg wu tedd di fukki fan ak juróom-ñett di 18 safar ngir ñu santale ko suñ borom Cheikh na Ahmad Bamba Khadim Rasoul di fondateur yoonu Mouride. bis boobu nag murid yi fépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci réew ñëw nañ ngir wuy si ndigal loolu ay fan yu néew des ñu àgg ci bis boobu noonu mu mel ni waxtu yu néew sax la ñuy wax waxtu yu néew moo des ñu àgg ci ndax tey la 17 safar suba di 18 safar mbooloo mi yéen a ngi koy gis barab yay barab buñ dem day fees dell murid yi fas yéenee amal seenu ziyaar ak barabu ñaan yi yéen a ngi koy gis fii ci jumaa ji ñu ngi ci wetu barabu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké waaye mu nekk suñu ginaaw barabu ku baax ki na Ahmad Bamba Khadimu Rasul duñ def lu dul fa yéene ànd ak yéen di leen dëgtal li xew ci màggal gi yéen ñi topp fii ci Alkhadimiyyah TV jërë ngeen jëf. maa ngi tudd Mame Fatou Anne maa ngi jógee ba Dakar ñëw fii soo ba tey naaj bi tàng na et tout na mais xam nga sëñ Touba moom. bu wootee faw ñu wuyu si ko ndax daf ñu ko jaral loolu la. fi ñu dëkk ak dëkk ñëw fii ak naaj bi tàng bi te bu doon tax ay xeex sax dañuy ñëw ñun amuñu ko du Serigne Touba ay taalibe Serigne Touba yu mag lañ fu mu wootee dañuy ñëw incha allah. mel ni ngeen sàmmanteeg ndigal li col ko yiw. waaw di di di jëfee ndigal rek ndigalu xalif bi comme loolu lañ bëgg ñuy sol lu yiw rek laxasaa yi mat defal muuraay ba mu jekk. parce que borom bëreub bi loolu la bëgg nañ ko ko defal lim ko bëggee rek waaw maa ngi delloo ziar awa laa tudd aw njaay maa ngi ko ba kii euh, dakar musuma ñëw touba nag c'est la première fois mais ambiance bi nu mel ak fii nii tàng na mais tamit sëñ bi moo ñu ko jaral waaw parce que bu dul loolu ñu bàyyi suñu yitee yëpp ñëw fii nii kon xam nga ne kooku am na lu tax mu ñëw waaw kay kon ba tax na fii nii dalal nañu daal dalal nañu euh, Touba moom mun naa wax ne kër boo munti dugg macha allah mooy loolu borom baax lañ loolu da laa si am te xam naa ne année prochaine incha allah bëgg naa teewaat bu soobee yàlla. salaamaaleykum Aliou man la fii maa ngi bàyyi ko ndax yàgg naa ñu màggal si nag waaw moo tax daal ñu ñëw fii doon ziyaara sëñ bi soo walee daal ñu si rang bi nii rek ñaan suñuy soxla yàlla defal na suñuy soxla waaw wax dëgg yàlla gis na ne màggal gi moom gaa yëpp ngi si moom. waaw ñu ñaan daal lépp daal lu ñu fi indi daal yàlla euh, may nu ko daal lépp ñuy ñaan yàlla may nu ko daal jërëjëf. maa ngi tudd Oumar Touré euh, jógee dëkk dëkk bu ñuy wax Kaffrine ci Saloum Saloum moom bu ñu koy wax sax daanaka si histoire Serigne Touba Saloum ci la bokk ma am te lool nag ñëw màggal si fii defal sama ziar na ma ko waree wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax sant Serigne Touba ndax daal ba ma dàmbalee euh, màggal léegi daanaka war na mat fanweeraat kon loolu yàgg la. gëm suñ tubaa lool te man samay mbir sax dafa am lu ci laxasu ndax man samay samay samay kilifa ñi ma jur ay tijaan lañ waaye mën naa wax ni sama sama sama murit mu ngi soqe ko sama waajur bu jigéen ndax sama waajur bu jigéen mu ngi bokk ci mañaaw si la kon sant yàlla def bu baax a baax am mbégte ci bés bi te xam ne sëriñ Tuubaa rek fi nekk ndax li ñu am ni kenn amu ko foo dem ci àdduna bi ñu ngi daw nañ ñëw màggal si fas yéene def seen i ñaan suñu ñaan yàlla fajal seen aajo ci barke Xaadimal Mustafa. mu mel ni ziar bi jafe woon na lool ci rang bi kañ ngeen ñëw ngir amal seen ziar day mel ni amal ziar bi waaw yombul nag ndax sëñ Tuubaa li mu am ni amee ko ci ci lu yomb kon buñ buñ ñëwee mu jafe dañoo war a sant xam ne am nañ màggal ndax màggal mu mënut a yomb loolu moom euh, dafa nekk loo xam lu war la màggal balaa boo ñëwee danga war a sonn ndax loolu mooy màggal na sëñ Tuubaa li mu amee màggal gi lu yomb kon loolu moom dafa warut a yomb daal. waaw mënta yomb mënta yoom wax dëgg yàlla di sant yàlla rek nag waaw ndax mbégte lañu am lool nag ndax bés bu teeroo see rek xool yëpp ay sedd ndax sëñ bi wax dëgg yàlla ñun la doon liggéeyal maanaam jaamu yàlla yi la doon nangu liggéeyul sa murid rek ndax bu yemoon ci murid rek kon ah, da da demee neneen waaye dafa liggéeyal ñëpp waaw ñu fas yee nag wax dëgg yàlla jàppale eh, sëñ bi ci liggéey bi moo tax a ñëw ndax ñun ah, daanaka Saalum lañ dëkk te yaakaar naa ne aussi am na histoire ci ci mbiru ndax Touba ndax Porokhane gee euh, nga xam ne fala la soxna jaara tëdd tey man mi di waxee fa laa jëlee soxna euh, soxna sa tudd soxna jaara ca ca soxna jaara yi la bokkoon kon loolu ab cant la bu ba wér a wér a wér di xam ne rek Sëriñ Touba ma dimbale di leen sant di leen sant di leen nag waa ci ci ci reportage bi yéen seen liggéey rafet na ndax wax dëgg yàlla li ngeen koy doxalee rafet nañ ko lool di ñaan yàlla yéen tamit seen liggéey bi yàlla barkal ko la ngeen di liggéey sëñ bi sëñ bi nangul lañ ko ci barke Xaadimal Mustafa bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin man maa ngi bàyyee ko Dakar fu ñuy wax yoof ah li ma yëg de xanaa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar te ëllëg muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci liggéey bu màgg bu kawe bu tedd bii nu defal nga xam ne fii ba sunu dund di jeex mënuñu ko koo fay di am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla daal noo ngi sant yàlla di sant Xaadimu Rasuul bu baax kontaan nañ bég nañ daal bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla it képp ku ñëw rek lépp loo fi ñaan ci lu baax yàlla na ko yàlla nangu lépp lu fi waay bëgg ci lu baax rek yàlla na ko yàlla nangu ñëpp ñëw ci jàmm ñibbi ci waat ci jàmm ak salaam ci yàlla nangu ñaani ci barke Xaadimu Rasuul